njortu ne bu bu moytuwul euh, assemblée nationale bu fekkente ne dëggal nañ li nga xamante ne mooy daan bi ko cour d'appel daan rek dana ñàkk euh, mandat de député euh, bu maire bi moom indi nañ ci ay précision bu baax a baax wane ne du ko ñàkk noo gisee coowal mbir Barthélémy Dias boobu nga xamante ne indi war nañ ko ñu war ko atte le vingt 22 bi di yem ak àjjuma euh, ñu bëri gis am ay problème pour comprendre ko parce que xamuñu mbir mi nu mu nu mu teerse ba ñu ubbiwaat ko ci à quelque semaines de l'élection présidentielle. je pense que xam nga à un moment donné c'est Barth lui-même qui voulait que affaire bi leer. waaw mu def moo defoon appel. Euh, beneen bi. moo mhm. di ne Barth dafa nekk ci benn situation bu difficile. moo mhm. xam ni sénégalais yu bëri dañ ko mere. Mhm. luñ ko meree son histoire ak Ousmane et sur son histoire ak Ousmane Sonko je l'ai dit à tue-tête génn na wax ci loo xam ne ñoom ñaar doon nañ ca wax Bart meree ko loolu barte ba muy génn di wax wax ba ëpp. Mhm. wax ba ëpp jur nag bu fekkoon kee def na sax lu ñu ko war a mën a bàyyee xel ou pas loolu feeñatul moom la mu réagiré feeñ ñu ŋàbb ko affaire bi jël extension moom itam mu ñëwaat dàbbali maanaam sur le plan de la communication monsieur Barthélémy Dias a commis des erreurs. Mhm. nit léeg-léeg mu def la loo xam ne boo bëggee mu leen da ngay toog temps jugé wala wa ilaa nga dem waxtaan ak kook hmm. boo ngeen waxtaanee out solution ne ah d' accord et yow rectifie parce que tant que Barthélemy Ousmane Sonko hmm. xalifa hmm. ñu ngi doon ànd. est ce que xam nga ni li xew nii du xew. tant que ñooñu ñu ngi doon ànd jàpp Ousmane Sonko bi du am du demee nii du demee nii mais état bi dafa joué. ruube jaxase leen ruube leen ba pare doog leen naa song kenn ku nekk. a song kenn ku nekk loolu nekk di def. attaqué kii attaqué kii attaqué war a attaqué ñëpp nag pour nag samp mbërëm te samp mbërëm ma sax ñoom seen biir jubawuñu hmm. maanaam lu extraordinaire moo am. Euh, léegi affaire bi nii lay def gi affaire bi nii lay lay def day def nii def nii def nii def nii delluwaat ci fa mu jóge woon. hélas fa mu jóge woon nag c' est le président Sall c' est il va se retrouver seul à être là pourquoi c' est quoi pour être encore hmm. la non hmm. je ne pense pas mais pourquoi question la. mais sur le cas Barthélemy aujourd'hui Barthélemy est seul. il est seul. oui sauf que sur le cas de Linka. juge yi war a juger nii. Mhm. le cas Ndiaga Diouf. écoute je te di dañoo tooñ Barthélemy ba romb tooñ. tooñ ba romb tooñ. Barth deful. mais l'expertise balistique, balistique. au temps lan la mhm. waxoon. bal bi rey Ndiaga Diouf du bal bu baax. du bal du balu kii waaw léegi man loolu mën naa ko wax démb ñëw tey di di wax baat ba Barthélemy dara ci lool non moi je suis conséquent. principe bi may permettre may défendre x y d mhm. ci du question damay défendre nit mhm. principe la noo défendre mhm. li ñu def Karim à un moment du yoon li ñu def Khalifa à un du yoon li ñu def Ousmane du yoon li ñu def Barthélemy nii du dëgg du yoon léegi nag après les impairs les imperfections les fautes et cetera à chacun d'assumer Barthélemy va devoir assumer lii ko dal ni mu gère lu mu ci am muy mu mu jël waaye damay wax bu dee dëgg rek encore sur le cas Ndiaga Diouf amul lenn am dañ ko tooñ ba romb tooñ fekk ko ci bërëbu liggéeykaayam bëgg ko faagaagal mu def légitime défense sauf que légitime défense ba mën nga ne waaw kon est-ce que du moom moo tiré ñu ne la non mais en cas bal bi rey kooku du moom kon coup mortel bi ñu ko condamné yow da nga gëm dañ ko waroon acquitté quoi bañ ne dee sànq bal bi ko moom du moom euh, mais bien sûr sauf que nag ma répété la APR ñoom ñoo ne ci ay ñoom au ñu tabax réew mi. au mhm. lieu ñu xool liy avancé réew mi ñu ngi ci ay micmac. Mhm. comme Barth adversaire dugal ñu fi yëpp. adversaire bu après quand Barth parle de la se <coughs> de la selle. Mhm. la contribution économique locale. oui fooy joxee mairie Dakar daaw wala daaw jéeg mille milliards ren nga ñoo jox ko 500 millions. oui jàpp ne daal day def ceen nar politique dafa nar campagne. mooy yëfi 3 3 milliards. mooy yëfi waye waye li ma lay wax. mooy yëfi lagara. APR ñoo amul talent sa waay mais mais mais loolu tamit lu doy waar la ah ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko ni ñu tëjee robinet. mais je veux dire ko fa. mais ce pouvoir là fait ça depuis 2012. et malheureusement président Macky Sall son management président nga baal ma mais sa management à ce niveau c'est terrible. moo di ne pas Assane bon il a les moyens c'est un homme d'affaires bu amee moyens ça peut être compliqué il faut pas que mu e, exister on a éliminé des gens comme ça ici. Mm-hmm. xam nga on parle d'Ousmane Sonko il y a plusieurs Ousmane Sonko. plusieurs Khalifa Sall plusieurs Karim Wade plusieurs Barthélémy Dias ñoo xam ni des affairistes dans ce pays on les a coincés parce que ànduñoo ak APR moo tax ma ne la APR aayuñu xam nga talent maanaam bu doon football dañ naan ñi xamuñu dara daaj ji rek la ñu xam gaañ nit ñoom noonu la ñuy dundee yàq ay taulier yàq maanaam sens de de génie bi tax réew mi changé mhm. nit ñi di leen tàcc naan APR ñooy ndaanaan waa APR du ñu ay ndaanaan te dañuy suul ndaanaan mhm. duñu ay ndaanaan te dañuy suul ndaanaan. Mhm. malheureusement mais mais wax nga wax nga ko léegi ah mais foofu dama bëggoon ñu taxaw fa tamit. la contribution économique locale bi ma doon wax. la SEL lan moo tax ñu indi ko fi à partir de l'acte 3 de la décentralisation. Mhm. ba ñuy xeex Khalifa Ababacar Sall. Mhm. xooli. diggante mille 2014 di wàcc ci la ñu act indi acte boobu acte bi xam nga lan la woon. mooy désintégrer désagrégé. nga dem fekki la Sococim qui donnait deux milliards et poussière à la mairie de Rufisque annuel taxe annuelle Sococim daan ko jox maire Rufisque mhm. parce que Daouda Niang était le maire et que Daouda Niang est du parti démocratique sénégalais yow le régime du président Macky nga ñëw dindi loolu parce que yaa ngi jàpp kooku bu amee ressources yooyu day day politique. Mhm. xam nga le drame du président Macky ak ñi mu àndal. c'est ce calcul là fallacieux. day am doole c'est terrible. gis-gis bee gàtt. mais c'est mesquin hein, comme ni et méchant gis-gis bee gàtt maanaam kii nañ ko coes fii réew doo ko jiitee ci coes mhm. da nga koy jiite ci ubbi opportunité su yaatoo lu mu gën a yaatu yow sa nguur di gën a am doole xam nga nu mel daf mel ni Youssou Ndour taxaw super étoile biir cosaan nekk Youssou Ndour maanaam doon li mu doon yàlla defal ko te teraanga mu nekk Youssou Ndour ñëpp naan Youssou Youssou mu taxaw ci kaw scène bi di siis ay musiciens noonu la mel. <laughs> c'est ridicule xam nga loolu loolu il faut nga nekk dof dëgg maanaam nekk ci kaw seen ba pare naan Habib mm-hmm. Habib Habib jàll mm-hmm. na ko yàlla yërëm Habib fay xoolal Habib bul feeñ bul feeñ eh, eh, mbay làkkatul bu kenn gis yow man la war a gis mooy dof alors bu nekkee ci kaw seen bi plus ñuy gis Habib fay sa présence scénique yàlla ko yàlla yërëm gis mbay gis gars yi naan mbay du nit mais booy xoolal jëmi li muy guitare mm-hmm. mais Habib oh Habib waay plus ñu leen di gis plus Youssou Ndour di kawe mhm. suñu ay autorité foofu la ñu war a toll sawaay moo tax ma ne la président Macky Sall jàpp naa ne ñi ko waroon conseiller sax conseil wuñ ko wala amuñu opportunité conseiller ko parce que politique am mhm. au Sénégal ak ni mu gérer les affaires baaxul mais mais li nga wax ni lu am solo la parce que ñu ne ñi jiite collectivité territoriale ñi ngi daj lu ne ñi ngi daj lu ne mënuñoo liggéey dara parce que dañuy bañ opposition bi am bilan parce que dañ ne euh, élection locale yi bëri na grande ville yoo xam ne ñoo ko gagné. Hmm? yu bëri dañ leen fay. coince léegi l'état parce que dañuy bañ dañuy dañuy dañuy. waaw léegi léegi yow léegi yow. pour après ñu ne gis nga ñun mënuñoo jiite localité. waaw nu ñu a jiite réew. Ousmane Sonko il gère la Casamance. lépp loo xam ne war na permettre sa son magistère mu am doole yow état nga ne non comme damay politique contre moom naa fexe ba. ay dossier am du baax ni mu war a baaxee. bu ko defee waa Casamance daal ne ah saa yi dénkoon nañ ko de mais mooy loolu. def fi dara. mais loolu la ñuy wax manque de talent maanaam mooy lay wax ne la les paradigmes et prismes de politique au Sénégal dafa war a changer. Mhm. loolu nag pour mu changer foog ñu xool ñiy politique ñana ñuy xool seen xol yi fan la toll xool seen jëfin xool ñii est-ce que baax nañu parce que waay dafa am ay vertu yoo xam ne dafa am solo na mhm. nañuy fal nit ñu rafet xol ma répété la ko Sénégal nañu jàng xool ku rafet xol ñu fal ko moytu dof yii nga xam ne seen xol dafa dëgër waya waya. parce que tey quand je prends dans un pays il faut créer des richesses. Mmh. des soupapes de richesse mu yaatu ci nit il faut que l'argent circule. Mmh. il faut que nit ñi fonctionner mais non Khalifa Ababacar Sall bu ñu ko permettre mu pavé tout Dakar on, va dire que moom moo defar dëkk bi. dafay am <laughs> mu am projet emprunt obligataire de vingt milliards. Mhm. pour changer place de l'indépendance def fa ay souterrain njaay ñii di jaar ci suuf ñii di jaar ci kaw nga bloqué ko ba tay ba sànq yow defoo ko. Mhm. ba ñuy xeex Khalifa Ababacar Sall qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé le ministère du renouveau urbain. Diène Farba Sarr oui. mu nekk maire bis mi mi mbëkkanteeg moom fële. mu nekk maire euh, bis place de la nation. waaw mu nekk maire bis. loolu la ñuy wax dundab lagara ak waya waya moo tax ma ne la APR amoonu talent. mais pourtant yàllaa leen fal nu falu mais amuñu talent mais loolu Pa Assane bi ñu ko doon def dañoo jàppoon ne tey jii c'était pour euh, pour jàkkaarloo ñoom dëgg te gis nañu ne jariñu leen dara. non non non ah, ministère sax gisatuñ ko lan la fi liggéey. oui. Euh, Padois ay jëmbat. Euh, euh, kii statuette. lu maire war a def na ko bàyyi ministère bee koy. waaw. mais kan moo koy conseillé loolu ku koy xelal loolu. ay waye waye rek. ay waye waye rek. ay lagare rek. mu nu jógee rek teg parce que am nga am nga maire bi def loolu xoolal bu ñu melee ni Baye teg seen benn verre rek toog non mais. ces gens-là il faut. maire bi foog ñu jàkkaarloog moom. waaw il faut il faut il faut régler ça parce que kii def ñuy fontoo. ay dof yu ñu fal xam nga saway mhm. gis Sénégal billaahi wallahi talaahi yàlla nañu yàlla may ay nit yu yu yu yu maandu mhm. ay nit yu rafet jikko yu rafet xol important ay c'est capital sëñ bi gis nga dafa am ñoo xam ne ñu sax jege chef de quartier mhm. bay jege président billaahi wallahi talaahi hélas nous nous nous nous subissons ay nit yoo xam ni dañuy nekk à des stations nekk kii dof c'est la politique moo nekk au de tout moo tax est-ce que du une. la mauvaise politique oui politique bi nekk ci kaw moo moo moo waral loolu. politique bu bon. Barth est-ce que li ñu koy nekk di euh, ñi jàpp ne acharnement la wala song la c'est pas parce que dañu bëgg atteindre xalifa bi nga xamante ne mooy leader am. parce que moom wax na ko euh, lu jëm ci parrainage ba kii je passe au-delà au-delà atteindre xalifa ou pas grand dama lay wax benn affaire affaire moo nekk ci benn muul bu bon boo xam ne lu leen laal bon. Mhm. lu leen laal bon Barthélemy est maire de Dakar donc le maire de Dakar est sujet à échanger avec le président de la République. jege boobu tey jural na ko àdduna bi yëpp daanaka mereka mhm. mereka sauf que fa ngay nattee yow sens de civilité ak nekk ca ci état de droit ña ngay seqal ñoom ñu ngi ci leneen. Mhm. hélas c'est là où. le parler de trop de Barthélemy foofu la wax ne bu doon man dama kaa conseillé dama naan ko non il faut pas trop parler. parce que en mi enchaîné la. oui oui oui il fallait pas il fallait pas nom de Dieu. Mhm. à la place je lui aurais dit lii Ousmane wax nga jàpp ne daf la dafa wax loo xam ne waru koon wax demal seeti ko nga toog ak moom ne ko Ousmane say nu mu demee nii affaire yi kii bu ça lui aurait permis peut-être après mu bu dee daf ci am lu mu ci war a rectifier mhm, mhm, mu rectifier que après de son propre gré bu boobaa don bi du demee nii. mais boobu fekk na ruubekat baa ngi activé. Mhm. di dox Barthélemy organiser le forum la des villes ñëw en tant que maire war boole ci mbir mi président de la mhm. parce que c'est le président. ñoom ñaan ñu taxaw di nuyonte le maire honoraire il s'appelle Khalifa Ababacar Sall Habib Sy et le président de Yewwi mhm. c'est normal mu éviter leen ñooñu taxaw di nuyonteeg président de la République nuyonteeg président ça prend une seconde dix secondes tàppante ça va monsieur le président ah, ah, na nga def ah euh, euh, Habib yow état bi jël pouvoir apéris bi jël photo ya tas ka ruube sama classe ki toog ci internet bi eh. gars jaay nañ yeewi askan jaay nañ yeewi ce qui s'est passé après mu am mu mu mu am ay rallonge mhm. et cette sale politique la suspicion bi dugg. eh oui de confiance. ñu ruube jaxase Barthélemy ak Ousmane jaxase kii kii jaxase ba Ousmane wéet. ba ñuy def loolu. ñu ñu déet ñu ñu jaxase waa yeewi askan wi tamit ñi desoon ak Ousmane naan way Ousmane way Ousmane ñooñu dañuy wax way Ousmane ci kaw ñenn ñi ñenn ñi laa waxuma ñëpp de ñenn ñi way Ousmane ca suuf ñu ngay wax ak nguur ga. Mhm. ca suuf ñu ngay wax ak nguur ga ba pare naan jalaguñu mais ca suuf loolu yëpp nag indi lii Ousmane tey ñu ñëw ne ko coppet ñëpp toog ku ne toog parce que ku nekk yaa ngi yaa ngi ñaan sa morom la ku ne mhm. toog lii la la APR liggéey. kon ñoom ñoo ruube lépp ah booy xool. ñoo ruube lépp mais sauf que nag noonu ñu rube itam. Mhm. loolu yëpp nag jëriñu leen dara. Mhm. parce que xam nga lu tax danoo génn a génn ci xolu nit ñi ñoom. APR mais yaa ngi wax loolu rek est-ce que du loolu nga yaakaar APR dañoo génn ci xolu nit ñi est-ce que loolu nga yaakaar. mais loolu am man kay sama problème.